jërë ngeen jëf internet yi si taamu ngeen taamu seen chaîne de télé numérique 5 TV ñu dikkaat ak yéen si xibaar yu gën a fës ñu ngi koy tàmbalee ak université Gaston Berger mi nga xam ne benn jàngalekat lañu fa jiim ne moo doon violé benn xale enquête bi ko xamal ne wax na ne jàngalekat bi ñu ngi koy jiim ne moo sàkku benn xale bu am fukki at benn moom nag dinañ ko defeere parquet tey ji victime bi dëkk Gandon xamal na enquêteurs yi bagage yi nekkoon si néegu professeur bi yépp te fàttewu si lenn xale bi na enquêteurs yi ni da ko doon si néegam di ordonnance su pare mu jox ko ko préfet bu Thiès aay na tamit jaayam benn weer Issa Diagne tàmbale na aay bi di xamal ni ay raison sécurité moo tax mu tere jaayum carburant à détail si département bu Thiès bi yëpp waaye comme niñ ko defee ci région bu Dakar sous préfet yi dinañu jagleel ay autorisation ñi nga xam ne seen liggéey dafay laaj ñu jënd carburant à détail le quotidien nag xamal na ni mesure bi lu tax ñu jël ko mooy tension yu am ci affaire sud boti bi ndax police tàmbale na sax jël ay matukaayam ba bàyyi benn oto bu fees dell ki policier si promenade de Thiessois jàll ci affaire sud boti ak njiitu Pastef Ousmane Sonko mi ñu convoqué tribunal bu Dakar suba ci mercredi bi bu sukkandikoo ci leeral convocation bi mu ngi jóge ci juge huitième cabinet bu tribunal d'instruction Mamadou Seck député bi nag teg woon nañu mbalaanu kiiraayam aljuma bi passé wante waxoon na sa njëlbeen ni lu munti xew assemblée jàpp na ni mbalaanu kiiraayam dañul ndax respecté wuñu procédure yu war ngir tegg ko ba tax na mu ne du tontu ji convocation relation bu Mamadou Seck ndax jàpp na ni daa far Ousmane Sonko waxoon na tamit dina résister ndax affaire bi complot la bu njiitu réew mi Macky Sall lal Kémi Seba président wu ONG bii di urgence panafricaniste àdduna si affaire Sweet Beauty bi moom nag jàpp na ni li Abdoulaye Wade waxoon ci affaire bi mooy dëgg ndax Sonko dafa def preuve naïveté ndax boo nekkee homme politique bi nga xam ne nguur gi dalay xeex rek waroo dem di marché wu guddi te àndoog seede ngay xaalal yoon bépp sos ak manipulation yoo xam ne ñi ko jiite amuñu benn mbébét lu dul fexe ba jëlee pilier la ci seen politique teg na si ne jëf ji mu ngi koy fàttali jamono yu gën a lëndëm si wàllu élimination wu opposant te war nañu delloo si suñuy xel si suñu noonu yu gën a mag ndax Macky Sall ñoom français yi lay liggéeyee ba tey si affaire Sweet Beauté avocat wu Adji Sarr mi jim Ousmane Sonko viol ak menace de mort bañ na médiation bi nitu diine yi bëggoon def moom maître El Diouf wax na ni du nangu mukk médiation bi nga xam ne amul bokk amul génn ndax yoonu diine nekku si teg na si ne médiation bi lu wóor a di la ndax day wàññi doole wu yoon bi war a def lépp ngir dëgg l'observateur mi xamale li nak à na si ne Adji Sarr buggul woon gisee fukk ak juróom ñetti membre collectif des religieux yi si santé démb ci lundi bi faculté bu médecine bu pharmacie ak bu odontologie ya nekk ci université Cheikh Anta Diop dañu arrêté won sen activité durant 24 heures la ñaan moy ñu renouveler contrat ak Dakar dentique vaccination contre Covid-19 ak hépatite B sen président wu amical yëgale na ni duñ si yam ndax dinañ jëfandikoo bépp moyen syndicaux bu war ngir ñu déglu Mohamed expliqué na ni ñetti point yi ñuy laaj wax ko autorité yi depuis septembre wante réagiruñu si na sax ni ñu ngi lu ñuy def wante ni démarche pacifique ak responsable bu ñu amal amul njëriñ ñoom nag ñu ngi ñaawlu bu baax lu covid 19 bi nga xam en première ligne di ak wante yi virus di B tamit kumba am campagne de vaccination bi

que am na ay nit yu bëri ñoo xam ne dépassé wuñu quarante ans te amuñu benn comorbidité ñuy jot ci vaccin bi buñ ci génnee politiciens yi am na ñu nekk di liggéey ci bërëbu fajukaay ñoom nag lu ñu def mooy di profiter seen poste ngir dugal seen i xarit ak seen i am di jàmm tey jii feebar bi di covid 19 def na 100 cas yu bees ginnaaw ba ñu defee 1273 tests ci cas yooyu am nañ ci 42 cas contact ak 58 cas communautaire wante 241 patients wér nañ ci 49 cas yu grave ñu ngi leen di toppatoo ci hôpital yi doomu réew mi ñàkk nañ ci seen bakkan tey jii lay am at ba ñu mbas bi gane seeg léegi ci at bi nag am nañ ci 34 positif ci cas yooyu am nañ ci ñu ci wér ñu nekk ci hôpital ya ak doomu réew mi ñu ci ñàkk seen bakkan lii moo nekkoon seen xibaar gën a fës ñu leen di jaajëfal ci seen teewlu bu leen fàtte abonné wu te bës suñu cloche notification bi ngir jot suñu yeneen xibaar